salaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokk yi nga xamante ni yéen baaxoo di seetaan seen seen youtube bi di Tivaouane 24 TV mbokk yi Tafsir Abdourahmane Gaye nekk koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi di Sénégal mu nekk koo xamante ni xam-xamam bu rafet xam-xamam bu yaatu ñëpp rafetlu nañ ko ba tax na rek chaque jour nit ñi di jàng lu bari ci gàmm yi nga xamante ni mi ngi koy amal foofu ci 2STV ak waxtaan yi nga xamante ni mi ngi koy amal foofu Tafsir Abdourahmane Gaye démb ci 31 décembre bi mu nekkoon fi nga xamante ni moom mooy rajo télévision Asfiyahi àndoon ak Sam Mboup ak groupam ñu doon amal foofu gàmmu démb ñëpp kontaan ci li nga xamante ni def nañ ko foofu ci euh, Asfiyahi télévision mbokk yi waaye tamit tey ñu xëy dégg ñu ni soxnaam dafa wàññeeku di soxna ci ki nga xamante ni moom mooy Tafsir Abdourahmane Gaye di yaay Buri Cissé moo génn àdduna tey jii le premier janvier ginnaaw démb nga xamante ni borom këram bi bégal ñu ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy tafsir gay yi mbokk yi loolu lañ leen doon yëgal ñuy ñaan ki nga xamante ni moom mooy soxnaam yàlla yërëm ko te xaaree ko aljanna foo mu jëm euh, dàqal ko fi nga xamante ni moom la bàyyi ko te lim fi bàyyi yàlla teg ko loxo may leen xolub muñ jërë ngeen jëf bokk mi yow mi seetaan ba noppi ñu ngi lay ñaan rek nga daal di abonné wu ci seen YouTube bi di Tivaouane 24 ngir nga mën a jot ci yeneen yu am solo yi fi bàyyi ko jërëjëf